man kuréel gi may liggéeyee nekk fa ambassadeur mbirum jàmm la ñuy toppatoo la paix li ma jàng diplôme bi ma def c'est un diplôme d'analyste en stratégie internationale mais ci wàllu résolution des conflits et leur dynamique laa ko def def un sujet sur le djihad sur les conflits en Afrique ma gis sama réew ba noppi ma jiite ma présider groupe des ambassadeurs africains ci UNESCO ma gis sama réew ma am lu ñoo woowee de signaux faible que dama gis ne que bu ñu demee élection mën naa indi ay tension mën naa indi ay conflit conflit d'interprétation bu njëkk mooy luwaa bi lii la wax yow ni nga ko gisee mën na laa ko gisee loi yi leerul diggante code électoral bi ak code pénal bi ñu ne lii nii la lii la ndele la bi ñu jàppee Ousmane Sonko la gën a tar ñii ne waaw contumace lii la ñu ne du lii ma def rôle boo xam ne mooy sama rôle premier moom laa jàng philosophie mooy poser des questions poser une problématique ne waaw lii bu ñu ci demee est-ce que du ñu envisager lii xew man duma ma décideur du ma leneen man xalaatkat la xalaat mooy sama liggéey ci loolu laa yaroo ci loolu la ñu ma formé ci loolu laa màggee ma teg ci beneen métier boo xam ne aussi métier laajte la muy métier journaliste lu weesu sama métier philosophe ma ni dinaa poser problème yoo xam ni ci lii ma gis muy ay signaux faibles ci lii ñëw ma analyser risque yi nga xam ne ça peut mën naa bokk mën naa inhérent ci li nga xam ne moom mooy processus électoral bi ak organisation élection yi analyse de risque ma ne yaa risque faible mais yaa risque quand lii mën naa xew lii man naa xew bi ma koy wax boobu dara xewagul boobu dara emegul dama jàpp ne mënoon nañ maa déglu parce que li ma doon wax man ay fait objectif la woon nous n'étions pas prêts laa wax nos textes ne sont pas adaptés nos textes ne sont loolu laa waxoon ci li nga xam ne def nañu ko bind nañu ko man citoyen la dama jàppe sama bopp citoyen ma def ay interrogation léegi nag ci biir am na tuuti jiñaate euh, man dama dama dama assumer lu ma def ba fii mooy ne lépp lu nga xam ne tànku jàmm la ñu war koo dox pour jàmm am ci Sénégal man kenn du ma ci jiitu dafa am principe boo xam ni nag c'est un principe de base ci mu di on n'a jamais l'expérience du possible